salaamaaleykum téléspectateurs yi safoo di seen VD la voix du Ndiambour ah tey nag lay de bés tey la tey lu xew muy combat bu mag bi nga xamante ne depuis weeri weer ñu ngi koy xaar ñaari mbëri koy bëre mooy kan mooy Quench Boy bu Bargny ak ki nga xamante ne mooy Lac bu Fass tey du yomb fii la ñu war a fas yéene jàkkaarloo léegi incha allah fi nga xamante ne mooy arène national ka ma tëgg combat bi mooy la promoteur le promoteur de l'émergence le promoteur de tous les temps kooku mooy Ilimane Lo borom Njàmbur production tey mu ñëw fi nga xamante ne nag mooy arène nationale combat spécial bi di ki nga xamante ne mooy taxe war a bëre ki nga xamante ne mooy Youssou Ndour mu am ay combat dix combat dina am bu sooba yàlla tey jii kon yéen ñi nga xamante ne yéenay sitaan LVD la voix du Njàmbur préparé leen nañ leen won lépp dara du leen raw di dugg nañ leen leen won touche mbëri nañ leen wan supporter bu ñuy dugg nañ leen wan li azuko ci kaw di supporter dañ leen wan kon tay ji da du yomb tay ma sama caméra man leppay saf leppay metti ak la voix du njambour tay da du doy dañuy dem dugg ci esadwi, xol li xew ci bir stade bi tay da du yomb dara du yomb dara lay demé gis ngeen service de sécurité bi ñom ñew nañ depuis bi yag commencé installer wu ci stade bi di commencé wajal li nga ne mooy supporter naka lañu leen di casé gis ngeen jaaykat yeex ñëpp ñu ngi ci stade bi kon ça veut dire que tey làmb ji moom dara du yomb waa fas ak waa Bargny waa Bargny wax nañ ko démb carrément ne tey Lac Rose mënu fexe ba daan Quench ñoom ñoo ko wax nee nañ li mu entraîné xaju si kawam waaye Lac Rose nee na man duma jaarukaay ndax lu tax du ma jaarukaay man champion la képp ku ma alors man ma la dóoree di nga xam ne dóor naa la waaye continué na ko bés boo ma dóoree bu ma la dóoree nga daanu yow it baa bu ma jàppante yow naa la def loo xamante ne mbër mosu la kaa def kon gars yi dama ne tey ku yeex doo gis jël bi fi lay xewee si LVD la voix du Ndiambour ah, ko. bismillahi jàmm rahmaani jàmm rahimi jàmm yàlla jàmm yàgg. caka njaay ak atumaan ma njaay ngoone tënga géej abu dem ma bàyyi maar ma ñu jabax dem ko fandeen maa ngi jooy ongo ñaag mu umi njaay mu ñu duppe mu umi la kere mbaaxaan ma des si teeni jungo yo maana njaay ma xorojo buur géej ak mbay njaay ma des sa beeñ ba bismillaahi fenkale menkale fenk na ci jant yàlla bi yàlla mottali fajar ma jar tarfiin moo di këng sa loxo mexee ma loxo mexee Abdou Karim Abdou Karim tuf na góor tatar na jigéen kan sun dubukin dubukin dubu fa yàlla bismillahi fenkle menkle fenk na ci yàlla bi yàlla moo tili fajar majar tarfin moo li këng salaali muhammadu walaali muhammadu kumba nguru nguru dumbe nguru tamba dumbe jasiki tamba dumbe jasiki tamba dumbe kufron tooke kufron tooke takasumu tooke takasumu waaw gars yi ñu ngi nii euh, jàkkaarloo nag ñi nga xamante ne ñooy supporteru waa euh, Bébé Balla di xale boo xamante ne vraiment xale bu mën a bëre ñu taxawaax supporter bi laaj leen naka la ñu waajalee combat kilifa gi tur bi naan la. daam loo la. daam loo tey nu ngeen waajalee. wa waaj bi comme ni ko ñëpp waajal rek. ngeen jóge fan. ñu jóge ba Louga. ah Lugalo. waaw Lugalo waaw. kon sonn ngeen ah. nañ trop mais nag dara daanaka jar na ko. booy entre promoteur bi ak euh, mbër mi. ñun ñëpp suñ ñoo bokk même village. Mm-hmm. ñu ànd liggéey liggéey ba ba def tey ñu agsi fi. duñ def ko ci bis bi rek. mais ngeen combat bi. ni ko waajee comme ni ko mbër yi waajee rek. Ah, ci côté côté bépp entraînement physique mystique lépp ñaan adversaire 2 ko mu allah. mais Atou 2 attention moom mbër la boo xamante aussi euh, c'est très bien ku a jàkkaarloo doole doo nga daan de. non non non loolu loolu ñu it ñu xale lañ boo xam ne nii xale yéen boo xam ne ñun bi mooy suñu premier combat arène. mais jóg bëgg nañ bu ñu fa jógee tey incha allah Dakar kenn duñu fi présenté. waaw fa jógee tey heure bu ñu bàyyi ko Louga di ñëw xam ne Bébé Balla Junior mooy dugg si. ah Bébé Junior di moo jógee ba Louga tey ñu nekk ak moom di ay supporter am ba tey euh, ñu gën a waxtaan la nga wax si ki nga xamante ne mooy le promoteur de l'émergence ñu koy wax Ilimane Lo waaw le promoteur di Yersar moom defe naa ci moom laa commencé woon li ma ndax parce que dama la limal promoteur bi ak ak lutteur bi ñoo bokk benn chef boo xam ne man li may wax mbir ñëw muy taxaw ñëw muy Bébé Balla promoteur bi laa gën a promoteur bi yaayam lañ naa ne promoteur bi man kon nag mënuñu mënuñu lu ñëw taxaw ko ci bisam bi di ko ñaan yàlla mu réussir ba bu génnee combat bu muy ñu reefewaat di njortu mu am mu organisé ay combat yu mag dem ba xëcc ay Modou Lo ay Balla Gaye fas yéene ko tëgg di ñaan yàlla heure bu tëggee rek mu boole ci mbëru Louga jërëjëf bu ñaan yàlla kon mu jëlaat mbon moo xamante ne lay jógee kon ñu wax ne tey ji combat bi dara du yomba dara du yomba ak ki nga xamante ne mooy Bébé Balla kon nag gars yi ñu dem xooli ji ñi nga xamante ne mooy yeneen écurie yi seen supporters yi ñu ngi ñëw ndànk-ndànk di gis service d'ordre bi di leen wax tamit jërëjëf parce que ñoom it buñ fi nekk woon defe naa liggéey bi day jax ñoom buñ fi sécurité bi ah du baax kon gars nañ leen gën a joxe respect ñi nga xamante ne mooy suñu sécurité ñoom ñoo xamante ne ñun bu ñuy nelaw ñoom du ñu nelaw ñun bu ñuy def leneen ñoom ñu ngi si lépp loo xamante ne askan wi moo ko saxal si askan wi nekk si sécurité kon jërëjëf la sécurité la police ñu ngi fii kon nag ñu dem xooli jiwaat yeneen gars yi ni ñuy ñëwee ba si kanam ndox baa rek. waaw man ma lay toog sax naan an naka ndox mi maa lay nuyu tur bi nan la. maa lay sant. ma daal laami bi daal. Ah. maa ma si problème man. man moom moo bi mar jaay rek moom ma fi indi ñu fii moom mais fii moom ay solidarité moom moom yooyu moom moom intéresse wu moom ma daal daal mën naa kuul ma jaay sama jaay man. mais sotti leen si njaay mi naan leen génn leen def. yéen say moom mu ne ma génn leen. génn leen génn leen mais balaa ñoo koy wax man dama xam sama bopp ma fee laay toog si biti laay toog ku nekk sa wërsëg yàlla laay jaay ku nekk sa wërsëg su ma yëgee si kaw ma damay jaay moo tax man man noo man kon lay yóbbante promoteur bi nga xam moo tëgg làmba ja pour yeneen yi di ñëw mu naka lay def ak yéen promoteur yi mu dama leen bëgg a xam dama leen bëgg a kii yóbbante nee ni jàppale jigéen ñi dañu dañuy war a xam ne jigéen moo leen jur dañuy war a xam ne ñun dañuy daan suñu doole ku nekk ku nekk am na kër am na am na yëpp mais nag ñu dañuy daan suñu door a pour suñu njaboot yi mais dañu war a dafa a war a yërëm nga kii jigéen ñi mais ñu dañuy jaay rek mais dañoo bëggee ñëw daggaloo ñu ay 3000 ay lool ñu am na yoo xam ne am nañ ko am yoo xam ne amuñu ko mais nag man man daal du ma man du ma dagg ay 3000 ay jetta caaf laay jaay ak ndox man du ma dagg 3000 du ma dagg lool mais lu man essentiel daal su ma nee génn mën naa génn man yàllaay jaay yontu mooy jënd waaw promoteur bi daal nañu yërëm jigéen ñi parce que jigéen ñi ñoo tax fii fii fii neex waa ba tey doo mënoo tëgg làmb bi ba pare nga ne jigéen ñi ne ne ne génn fii mais jigéen ñi génn fii waaye ñi ñi dugg ci bi làmb bi. fa lay lekk dañuy xiif. suñu xiifee dañuy mar ñoo ñoo lay sagal ñu ñoo yore gerte caaf bi ak ndox bi. waaw loolu dàqee ñoo xam ne dañuy bëgg si gerte caaf bi léegi ñu ne génn ci biti léegi ñoom li ñuy def ah, promoteur dafa war a yërëm jigéen ñi jaaykat yi ne xam ne jigéen moo ni war a jur jigéen moo leen jur jërëjëf jërëjëf jërëjëf loolu moo war a <laughs> kon promoteur nañ bàyyi xel nañ bàyyi xel ñi nga xamante ne ñooy jaaykat ya ah. waaw maa ngi ñu xooliwaat mbedd mi dafa xew Moussa Ngom ca Mbàkke maa ko nax daan Lamine ca Yarax maa ko nax daan Lamine Ndiaye ca Yarax maa ko nax daan Ousmane Ngom ca Ndar maa ko nax daan Ousmane Diop ca maa ko nax daan Ousmane Diop Géeraw maa ko nax daan Abdoul Aziz Diop maa ko nax daan te mi ñoo soow bokku ñaari yoon laajal Madiaw Ndiaye benn yoon Amath Kirik Ndiaye benn yoon Robert Ndiaye benn yoon Jibi Njaay benn yoon mooy séeréer Njaay waaw ñu kontaan trop si jàkkaarloo yow nax yow moom vraiment loo wax si làmb rek loolu la Père Max bi su tey bi muy ñaari combat yoo xamante ne muy Mama Lamine ak ki nga xamante mooy Petit Petit Lo. ah non loolu combat moom commentaire naa ci la ma ci doon commentaire du ma ci sori mais daal xam naa ne sama ñaari combat yi fii moom ci laa mën a wax. diggante taxe diggante taxe ak Youssou Ndour fi ne moom léegi ma ci waxoon wax naa ko ca face à face ya. muy daal euh, ñaari mbër la maa ngi leen di indi taxe. le combat la waxoon da ko war a gagné. waaj na li wara def yeb def na ko combat la bo xamne waru ko ñak donte du yomb mais amna ñu yaakar ci na dal liñ ko wax bu ko bu ko bu ko appliquer meuna ci genn deug dëgg la père ñuy wax euh, tamit nga jox ñu pronostic rek ci digënté euh, la Rose ak ki nga xamanté moy mooy Quench. waaw it euh, combat la wax naa ko problème bi moy la grosse dafa bëgg confirmer ndax champion la bu neewon ci yoon dem ba ci biir mo am blessure am ay torof torof ñew bëgg relancer carrière am. Quench mi ngi ci yoon wi mais gis nañ ñaari sortie bu mujjii par décision arbitrale la gagné beneen ba par match nul te daaw ko def da daan jàpp rek di yenu dóor ci suuf tey nag loolu la ñuy xaaraat ci moom donte waaw la woon la woon la xaar ci moom ñi ngi ñaax nag yàlla ànd ak ñun waaw yàlla yàlla ànd ak ñun ah non di kontaan ci moom rek parce que am na vision ndax moom ñëw rek di di tëgg combat yi ndaw dama ne ba fa ñëw damaa ñëw pour bokk ci les meilleurs ñëw ma pour daw les second rôle moo tax mu tëgg affiche bu magee nii dañ koy ñaanal rek mu réussir ko. jërëjëf Père Max kon si gi moo tëgg combat bi nga xamante ne ñëpp dañ ne woon combat bi du am ñëpp dañ ne woon kenn mënu tëgg combat bu mel nii muy diggante ñaari mbër yi nga xamante ne ay ndaanaan lañ ci làmb ji ñaa ñoo xamante xam ñaa ñoo ku ñu jàkkaarloo si takkusaan ah nit ñi dañ kii am na problème muy diggante Quench ak ki nga xamante mooy Reug Reug Ilimane ñu ngi lay ziar. Euh, Linko maa ngi lay fay. ñu ngi lay nuyu di wax bés bi Ilimane ça parce que gis nañ ne sénégalais yee ko bëgg àddunaa ko bëgg vraiment mu nekk loo xamante ne si làmb daf ko soxla amateurs yi soxla ko supporters yi soxla ko ñëpp soxla ko moo taxoon tey ñu jël ko vraiment mu nekk loo xamante ne si ne lu nice la ñu am ci nag mbégte ñu ngi ñaan yàlla rek ñu àggale ko ci jàmm ak salaam incha allah. mais il gis stade bi foo mbattu tey mu takk. la mooy sa secret. waaw sant yàlla macha allah sant yàlla rek parce que xam nga du dara lu dul tëgg xale yu xew ci jamono. bu ne Lac tey mooy daje ak Quench euh, Mama Lamine Petit Lo. Mm. Youssou Ndour ak yeneen combat yu ndaw yi ci xam ne mooy xorom si. vraiment macha allah neex na trop loolu moo waral tey ñu tëgg combat bi. di ci am yaakaar nag incha allah ci àggale ko ci jàmm ak salaam. yal na yàlla def ñu àggale ci jàmm salaam mais j'espère que ñoom ñaar. ku si gagné j'espère que di nga ko beneen combat. waaw avance yi pare na ñu ngi leen di déglu incha allahu rabbi ku ci pare rek na ñëw set si ma incha allah ñu def ko beneen journée incha allah. nee na ku si pare rek ñëpp jël ko beneen journée kon kooku mooy ki nga xamante mooy le promoteur de l'émergence mooy le promoteur bi nga xamante ne le jeune promoteur bi soo a ñëw si làmba ji tey yaakaar naa ne ku ñëw fii di nga xam ne làmba ji professionnel làmba ki ko war a def def na si li ko war def na si plus de centaine de ay centaine de millions kooku mooy le promoteur de l'émergence muy xale bi nga xamante ne moo jóge ba Njàmbur muy xale bi nga xamante ne moo jóge ba Tëngéej di koo xamante ne liggéey rek la xam di jàppale ay rakkam di jàppale famem kooku mooy ki nga xamante ne mooy Ilimane Lo léegi li ñuy def mooy dem ne daal di jël entre yeneen mbër yi nga xamante ne ñooy dugg si léegi si làmba ji caméraman ñu de waaw ñu ngi dellu ziar Fall di ko daan si jàkkaarloo ak yow keroog ba ñu nekkee kër Ilimane Lo la nga waxoon def nga mooy neewoon nga si combat bi di ngeen ñëw di ngeen wane ne seen diggante Ilimane loo lu di tax la Ilimane sunu frère la hmm. yow ñu ngi lay ziar nga nekk nit ku baax ku gëm li ngay def Ilimane sunu frère la sunu xarit la bu xew lee ñun ñëpp dañuy teew faramaareen gépp ngi ñëw ndax Ilimane sunu Ilimane la ndax dañ ñëw mu teral ñu teeruñu defal ñu ay teraanga kon bu organiser làmb ju toll nii ay teew waaw tey ñu gis ñaari mbër yoo xamante yu mën a bëre. ñaar ñoo xam ne ay champion muy diggante Quench ak ki nga xam ne mooy Lac Rose. waaw waaw waaw ñu ngi koy ñaanal jàmm. mais ñun waa Fass la di ñaanal Lac suñu borom may ko ndam lu sedd ci barke Seydina Mohamed barke turandoom juróom-ñaari sëñ Fall. jaajëf bro. kontaan nañ. fii la kontaan nañ jërëjëf Lamine. kooku mooy Lamine Lam mi nga xamante ne mooy doomu suñu yaay Ndeye Marie Ndiaye Gawlo di ko xamante ne vraiment keroog ba mu ñëwee Tëngéej kër Ilimane Lo danaka Ilimane mu nekkaa mu nekk ñun waa Faramareen yëpp ñun dinañ ñëw si làmba kon vraiment kontaan nañ si gis ka ñu ñëw xoolaat rek ba tey gars yi naka la ñuy ñëwee tambour major yi nga xamante ne ñooy tëggal Lac Rose ñoom dèjà ñëw nañ dëggu di ah mais gars yi nee nañ wa wa wa waa gars tey du dem bari waaye bari ñi kase ndam li si tànk sax ne day dugg. day koy daan lu muy di baax na lu muy di baax na. du xool sax ndam li day dugg wàññi rek. du gis dama ne la eh, dama ne la lag bi roosatul. mais mais kon lag bi nu mu mel. lag bi roosatul de. bësatu mais gars yi saa waay nee na guddi guddi. guddi guddi. bari ñi bari ñi mais nu ngeen waaj a combat bi na ngeen. non combat day daw ñu bañul lu metti. waaw waaw waaw waaw Lac Rose mbaal mu ah. daar nu muy mel. xamul loolu. suñu xel dafa dal xamul li fajar di àndal. mbaalam fajar amul lu Lac Rose da la jëndi jën. da la jëndi jën eh, Lac Rose da la jëndi jën. mais sax la gars yi organise lañ. organise rek. ay xaar. Soay ma teel ma kontaan. mais Lac amul la fal ne amul la fal ne ruus bàyyi leen saaga bàyyi leen saaga waay bàyyi leen saaga waay dama la ruus sawaay sawaay Lac Rose bu bëggee jàmm na ñëw bëre bu bëggul jàmm nag bu bëggul jàmm dañu koy buddi ba si kaw bu ñëwee xeex nag ñu ko ko daan ko mais sama gars yi Baba Lamine kese lañ jóg maama na mi kese lañ jóg ñu Père Ngagne la. waaw ñu ngi lay ziar ñu ngi lay fay. waa Xaadim tey ñu gis combat bi. ah c' est la première fois. ngeen tëgg combat. waaye macha allah bu ñu gisee bi. Xaadim naka ngeen waajalee combat bi ba tax tey ji mu am bi promotion ba public bi mel nii. waaw dañuy sant yàlla rek ànd ceeg suñu mbokk. Mhm. liggéey ci ak famille bi ak mel ni yéen quoi vraiment tax am nañu taxawaay bu am solo. di ñaan suñu borom may ñu àggale si jàmm salaam. ta inshallah rabbi lamb ji dina neex dina réussir ndax iman xolam rafet na deug deug ta lu baax la ko sun borom defal bu sa xol dafa tee nit quoi vraiment man amna contentement ba baax baax baax baax baax mënuma wax dal vraiment sama xol dafa fess waaw ñu gis ak sa sécurité bi vraiment organisation bi ça veut dire que mu ngi jaar yoon mhm. tay loolu yëpp li ko waral moy peut-être bok nday bok bay ak professionnalisme bi ngeen wone wa mel mo laaj lolu mhm. parce que lamb d'abord sécurité bo amul sécurité bu doy mo deug lamb deug la il faut nga déployer ay sécurité bu doy mhm. def ci liñ ci wara def xam nga ba tax li gars naan Samba Boye duñ jaar ci suuf. dëgg la loolu la ñuy moytu quoi. jërëjëf Khadim ñu ngi lay jërëjëf jërëjëf Khadim kooku mooy Khadim mi nga xamante ne moo ànd ak Ilimane Lo di koo xamante ne moo sës si Ilimane rek mooy ki nga xamante ne vraiment macha allah lañ mën wax Khadim liggéey la xam Khadim mooy tànk Ilimane Lo mooy xaritu Iliman Lo muy gaa yëpp ngeen gis staff bi yëpp di liggéey ñoom ñëpp boobu ba léegi depuis des mois depuis des semaines ñu nekk si affaire yi kon dañuy dem xooliwaat ambiance ba li nga xamante ne mooy si kanam arène nationale bi. tey làmba ji du yomb du yomb de kan ngay àndal kan ngay àndal. Afia. mooy Afia. laa ma ji a xam nañu boole ak moom. xaalis kese mais du leer nag. wala ki ngeen di bëre dafa mën a bëre de. waaw loolu daw suñu yaram yow. xanaa doo xool daw suñu yaram. ba adam bi si topp na. da baax rek. waaw. moo ñu waaye na ko téye Petit Lo la. Petit Lo moom rek la ñuy topp. moom du métti du yomb rek ay sama jàmm Mama Lamine dafay indaale dara nga mbër xale. Mama Lamine bu ñu koy jàppee la bu am su koy jàpp. doole doole doole. xale la moom la toppee ko dara. jaajëf gars yi waa gars yi waaw ku dee sa yaay juraat. bu mu juraat waay. Talfa kese. Assane la ñu wax de. Petit Lo kase du passé la yu dem. Ah, waaw kooku mooy doomu ndeyu Modou Lo. Petit Lo yàlla waa yàlla may ndam yàlla waa yàlla may ndam na ma nee na ma moo mën nee na te moo ko doole. non su waxee day wax lu ko Ah. day wax lu ko neex rek. su waxee loolu noonu day wax lu ko neex rek. day wax lu ko neex waaw. kon wàññi ngeen seen bopp. wàññi nañu baax a baax. physiquement waaw baax a baax yàlla yàlla may daal. loolu mu daal. billaay walaay talaay. ah alxuraan mu diloo. waaw kase. jaajëf gars yi. waa Kobe nga lee. Petit Lo moo si mën foofu si jamono yi nga xamante ni. billaay walaay est-ce que doonu na Modou Lo. dëgg dëgg. est-ce que da koo doonu ba. waaw si dara bi la est-ce que saay saay yu Modou Lo mu ngi si moom si dara bi la. ah waaw ndeysaan ñuy topp rek incha waaw noonu lay demee ñu ngi fi nga xamante ne mooy si stade bi ah tey du yomb waaw tey moom vraiment gars yi waaj nañ combat waa kër Petit ngi nii Ibou Afia. ziar nañ la di kontaan si gis la fii si stade bi te it ñu gis ne lépp lu xew si lébu gi sa teewaay da siy ne waaw waaw xam nga doo nekkee lébu moom lébu saa yin xewle rek da war a bàyyi lépp ñëw jàppale képp koo xamante ni mooy lébu gi daal ndax loolu day faral ñun ay lébu lañu dëgg la kon lébu bëggul lu muy cosaanam moo tax suñu xewlee rek woo lébu yi rek dañuy sawar pour dem wuy si leen daal wax daal loolu mooy indi suñu jataay saa su nekk tey jii nga ñëw si bés bi nga xamante bés bu rëy la muy diggante Lac Rose ak ki nga xamante ne mooy Quench ñoom ñaar boo doon def pronostic si kan ngay def pronostic. waaw wala lan nga gis si làmb ji. waaw li ma si gis daal daal maanaam li ma la mën a expliquer. Mm-hmm. ku juum daanu. ah ku juum daanu foofu laa mën a yem artiste la duma ni kii duma ni kii waaye daal ku juum rek di nga daanu. mais c'est le meilleur gañ daal. loo gisee forme si ki nga xamante ne xale bi nga xam ne day yëg pour dem muy Quench. macha allah Quench macha allah Lac Rose macha allah man len yàlla ñaanal yalla yalla may len jamm dal ñoom ñaar ñep ñëpp promoteur de l'émergence iliman Lo waaw gan la di soga ñew ñukay ñaanal yalla lim bëgg ci lam yalla nako yalla defal yalla na dama dem ba raw ay ñom ko somba nga yalla man nako yalla nako yalla def xala bu ndawlu bi moy premier combat bu mu tëgg kon ñun duñ def limay ñew jappalé ko rek dañu ñaan sa digënté mom fepp mu dem nak paré nga insha allah Elimane yaa ngi may aha ndana na ngi mhm. muy ko xamanteni lepp gi la comme yow mhm. mu ñaan yalla moom bëgg ngeen signé yéen ben pacte signé ben contrat ba foofu ko tëggati lamb dama kay laaj na mom paré na pour ñëw bu soobee yàlla tey damaa ñëw pour wane sama bopp ndax mënoon naa ne ko tey damay ñëw fay ma taawaay noonu damay ñëw pour wane sama bopp mu gis sama bopp ba pare su ko gisee nag incha allahu rabbi lépp lu mu xawlete pare naa pour ànd moom liggéey ba korog mi bàyyi jërëjëf kontaan ñu bàyyi ngeen yegg si biir stade bi jërëjëf jërëjëf kontaan nañ